الله أكبر الله أكبر سبحانه وتعالى دي جل محمد صلى الله عليه وسلم دي كو نيان الموم اكي صحابام جام اكي يو اك خيول اك موچ اك كيب كو خامني ياغي تك سا تانك فو نيو ني تگون سين تانك بكرك بسبنج بس موكي جوليتي سيني بروم سبحانه وتعالى دا يوم يومبال الجامم جوليتي يونو يو يون ييغا خامني موم لا ني ساكوي اي تيابا موتاخ ني ني كوي جامم بروم بي سبحانه وتعالى مو ديف كو اي يون امنا سي جامو يالا يو خامني سي خول لا ام يو خامني اي جيف لا ام يو خامني اي واخ لا jaamu yàlla yi nga xam ne ci xol lay nekk li mel ni ki yéene def lu baax ak yi mel noonu yooyu yépp dañ koy compter ci jaamu yàlla am yoo xam ne ay jëf la li mel ni ki julli ak yi mel noonu am na ci yoo xam ne nag ay kàddu la yoo xam ne bu ko jaam bi waxee dañ koy jàppee comme kiy jaamu yàlla suñu borom subhaanahu wa di ko ci bindal ay yool yu dul jeex mbokki jullit yi bokk na ci kàddu yooyu kàddu yoo xamante ne suñu borom subhaanahu wa taala lim ñu ci dig ci yiw kenn xamul nu mu toll lim ci dig tamit ci lu baax ak i ngéneel kenn xamul lu mu toll lu moom borom bi subhaanahu wa moom rekk moo xam li ñu toll ci ay yiw mbokk jullit yi kàddu yooyu du dara lu dul ñeenti kàddu yoo xamante ne su ñeenti sallallahu alayhi wa sallam ñaax nañu ci lu bëree bari te mooy lan subhaanallah Walhamdulillah, لله ولا illallah, wallahu akbar. والله أكبر mu nekk ñent kàddu yu gàtt lool ci yu fees dell ak yiw ak tiyaaba njëriñ yi nekk ci kàddu yooyu nag moom lañu bëgg xam bokk na ci nga xam ne moom la ñuy ci ñeenti kàddu yooyu ñu bi na yi bokku nañ ci kaddu yi nga xam ne ñoom ñooy yi gën ci suñu borom subhanahu wa taala ki nga xam ne mooy abu daawud at-tayaalisi mu ne arbaun hunna min atyabi alkalaam wa hunna min alquran la yadurruka bi ayihinna badaat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar mu ne ñeenti kàddu ngi nii mun nañ ne ñeenti kàddu yooyu sax ci alquran lañu bokk boo ci tàmbalee rek baax na waaye mu ne ñenti kàddu la yoo xamante ne bokk nañ ci kàddu yi gina a sell fa suñu borom subhaanahu wa taala bokk na ci ngëneel yi ci ñeenti kàddu yooyu su ñeenti sallallahu alayhi wa sallam nee na ñoo gën li nekk ci asamaan ak suuf mu ne lépp loo xam ne jant bi dina ko tiim mu ne ñeenti kàddu yooyu moo ci gën moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma xëy wax subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar moo ma gënal ñu may ma àdduna ak la ci biiram ñu may ma àdduna ak li ci biiram ma bàyyi ko tey wax ñeenti kàddu yi moo ma ko gënal ndax ñeenti kàddu yi ñu gën àdduna ak li ci biiram bokk na ci njëriñ yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci ñeenti kàddu yooyu mooy ñeenti kàddu yi dañuy far bàkkaat dañuy seetal nit ki ci bàkkaat mooy bàkkaat yu ndaw yi maanaam bu ci bokkaale bokkul ak yi ñuy xam mu ne bàkkaat yu ndaw yi ja bépp jaam boo xam ne def nga ko mu ne mu ngi mel ni boo waxee kàddu yi daa mel ni danga jël gom nga daal di effacer bàkkaat yépp yi nga xam ne defoon nga ko ci bés bi yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ci xadis boo xam ne عبد الله بن عمرو بن عاص موكو من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض رجل يقول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر mu ne bépp jaam boo xam ne yaa ngi xëy di wax ñeenti kàddu yi mu ne suñu borom subhaanahu wa taala jéggal la say bàkkaat donte ne say bàkkaat tolloon nañu ni puuritu géej kon bàkkaat yi lu ñu bari bari mu ne ñeenti baat yi dañuy effacer bàkkaat yooyu bokk na ci njëriñ yi ki nga xam ne moom mooy anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne dañoo mus di ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu romb benn garab boo xam ne xob yi dafa wow xam ngeen garab bu wow buñ ko laalee rek xob yi dañuy wàcc tuuru wadd ci kaw suuf ñu ne bi ñu rombee garab gi wow lool ba nga xam ne boo ko laalee rek xob yi wadd yenn bi sallallahu alayhi jël yat bu mu yoroon mu daal di koy dóor ci garab gi bu mu dóoree yat bi ci garab gi xob yépp daldi wàcc walla xob yu bari boog daldi wàcc saxaaba yi di xool bi ñu ko xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi leen di wax ne ñeenti baat yi inna alhamdalillah wa subhaanallah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar dañuy rotal bàkkaari jaam yi comme ni ngeen gisee xob yi ni ñu rotee ci garab gi kon mbokk yi loolu ay yool yu bari moo ci nekk ak tiyaaba yu bari moo ci nekk bokk na ci ngëneel yi nga xam ne moom lañuy ñuy jëlee ci kàddu yooyu it nee nañ ne képp koo xam ne yaa ngi koy wax yaa ngi mel ni ki comme koo xam ne yaa ngi jëmbat garab biir aljana te kuy jëmbat biir ay garab biir aljana laa shakka ne garab yooyu di nga ci keru keroog bés pénc ñu ne ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis boo xam ne Abdullah ibn moo ko nettali mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñu borom reñaanee mu dem ci kaw asaman mune ne dafa dajek yent yàlla ibrahim yent yàlla ibrahim ne ko ya muhammad aqri'i ummataka minni salam manam nuyul ma sa xet wa axbirhum an jannata tayyibatu turba azbatu ma'i wa annahu qiyaan giraasuha subhaanallah والحمد لله ولا ilaha illa allah wallahu akbar mu ne ko boo demee nga nuyul ma sa xeet te nga ne leen aljana suuf su sell la am yaatu lool ndox mi it dafa neex waaye nag li fay jëmbat ay garab maanaam suuf su yaatu la ndox mi neex na kon loolu dañuy jàpp ne li ñu bëgg a foofu mooy lépp lu ñu fa jëmbat ci ay garab day sax waaye nekkul ay loxo ñooy ñëw di ko jëmbat waaye liy jëmbat garab yi biir ajan di ko saxal mooy jaam yi di saxoo di wax subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar kon yow sama mbokku jullit yow mi nga xam ne bëgg ngaa keru biir aljana bëgg faa am ay garab garab yooyu loo koy saxalee fii nga koy saxalee ci aduna mooy nga sax koo di wax lan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla yombalal dañu mun di taxawee di wax kàddu yooyu أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله وإن من فضائلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان فعن أبي سلمى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخ بخ وأشار بيده بخمس وقال ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء, للمرء المسلم فيحتسبه كي خمنا مومي سلمان mu ne dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy wax baxin baxin kàddu la boo xam ne araab yi dañ koy wax bu ñu déggee lu leen yéem walla ñu gis lu leen yéem ñu wax baxin baxin kon yonent bi sallallahu alayhi sallam mu ngi mel ni ku yéemu ci ñeenti kàddu yi wala ci mbir yi mu bëgg koo xamal saxaaba yi naa leen man de yéemu naa lool yéemu naa lool ñu ne mu daldi tàllal juróomi baaraam yi mu ne yéemu naa ci juróom yii juróom yooyu ñu ne ko mooy yan mu ne leen mooy subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar benn bi ñu ne ko mooy ban mu ne ak jaam boo xam ne yàlla da koo may doom ju baax doom ju baax jooju génn àdduna mu daal di koy muñ te yàlla rek a tax mu ne juróom yi yéem na ma lool ndaxte juróom la yoo xam ne dañuy diis ci balance lool te dañuy musal jaam bi keroog bés pénc bokk na ci ngéneel yi nekk ci ñeenti kàddu yooyu mooy su ñeenti sallallahu alayhi xamal nañu ne ñeenti kàddu yooyu amul lu ko gën fa yàlla amul lu jaam di def walla lu muy wax lu gën ñeenti kàdd yooyu surtout nag koo xam ne yàlla may na ko mu gudd fan kon yow sama doomu ndey yow sama mbokku jullit bu fekkee ñeenti baat yi nekkul woon yoo saxoo gannaaw bés ni ki tey na ko saxoo ndax bu la yàlla mayee nga gudd fan ñeenti baat yi dañu remplacer lu bare bare ci ay yool ak tiyaaba yoo xam ne dafoo ko woon waaye di ko am ndax ñeenti baat yi ñu ne dafa am benn kuréel bu ñëwoon ci Yonent bi sallallahu am ñu ne ñett lañu biñ ñëwee ñu daal dugg ci islaam ñu ngi bokkoon ci bani usra ñu ne bi ñu duggee ci islaam yonent bi sallallahu alayhi wa ne saxaabaam yi kan moom ay hébergeel sama ñett ñii ñi nga xam ne ñu ngi doog ci islaam ki ñuy wax Talha ne ko man maa leen di héberger mu yóbbu leen këram ñu nekk fa ñu dëkk ak moom ñoom ñett mu ne ñett ñooñu nekk ak moom ba bés yonent bi sallallahu alayhi wa digle jihaad xare kenn ci ñoom daal dem jihaad bu mu demee jihaad ñu rey ko fa kon kooku shahid la te yoolu shahid ku shahid ci yoonu yàlla mooy ajjana la ndax yool yi ci nekk ci ay tiyaaba ñu ne ñu toogaat ay jëmmi jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónnee am kenn ci ñoom it ku génnaat dem jihaad waaye yàlla def moom it mu dee ci jihaad boobu kon ñi Talha hébergé woon daanaka léegi kenn moo ci des waaye kenn kooku des ñu ne moom mu ngi faatu ci kaw lalam maanaam moom jihaadu kon dañuy jàpp ne ñi nga xam ne dañoo jee ci jihaad gañe nañ ko ëpp nañ ko ay yool waaye Talha mu ne ñu toog ba ay jëmmi jamono rek ma gént mu ne mu gént ñetti ñooñu nga xam ne dañoo tuuboon mu héberge woon leen ñaar ñi dee ci jihaad kenn ki dee ci kaw lalam mu ne mu gént leen ñu ngi biir ajjana waaye ni ñu nekkee biir aljana ki nga xam ne moom moo dee ci kaw lalam kooku moo leen féete kanam maanaam moo leen ëpp ay daraja mu ne moom mënul gëm loolu ndax ñee mënuñu dee ci jihaad dem xare ci yoonu yàlla de kii dee ci kaw lalam ba pare mu gis ne kooku moo leen moo leen gën ëpp ay daraja biir aljana loolu jaaxal ko mu ñëw ci yonent bi sallallahu mu nettali ko yonent bi sallallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Talha lan moo la jaaxal ci loolu lan moo ciy sa problème lu ciy sa problème xanaa xamuloo nit ñi mun nañu rawante ci kàddu yi mu ne waa ji nga xam ne moom moo dee ci kaw lalam dafa dundaat ay at yoo xam ne daf cee saxoo di wax subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba moom am na yoolu comme ku dee ci yoonu yàlla ba pare kon yem na ak ñoom ba pare moom amaan na ay fan ak i at yu mu dundaat yoo xam ne di wax ñeenti baat yoo kon rawee na leen loolu mu ne ko waaye keneen ki nga xam ne ki njëkk a dee damaa gis ne moom moo mujj mu ne ko waaw ki deewaat ci beneen xare bi kooku it ki njëkk a dee ki dee deuxième bi dafa desaat fii ay fan doon wax baat yooyu moo tax mu raw ko kon loolu lu muy tegtal mu ngi tegtal ne ñeenti baat yooyu kii nga xam ne ci kaw lalam sax la dee am na ci yoolu koo xam ne dafa jihaad dafa dee ci yoonu yàlla kon yooyu mbokk jullit yi ay tiyaaba ak ay yool yoo xamante ne kenn xamul nu mu toll bokk na ci ngëneel yi nga xam ne moom moo nekk ci kàddu yooyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu ñàkk ñi saxaaba yi nga xam dañ doon dund ak yonent bi sallallahu ñu nekkoon ñu ñàkk nekk ay fuqara dañoo demoon ba yaakaar ne ñi nga xam ne ñoom ñooy borom alal yi ñoo leen gën ndaxte ñi borom alal yi dañuy jaamu yàlla comme ñoom waaye dañuy joxe ay sarax di génne asaka te ñoom mënuñu lool mu ne ci loolu ñu daal di dem ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jooytu ñu jooytu yent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ñun dañu ñu ñàkk lañu comme ni nga xam ne noonu la Abu Zarr nettalee xadis bi mu ne anna naasan min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaalu linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah zahaba ahlu dusuuri bil ujuur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة ñu ne bi ñu ñëwee ci Yonent bi sallallahu ko ñu ne ko borom alal yóbbu nañu yool yi yóbbu nañu tiyaaba yi dañuy julli comme nu ñuy jullee dañuy joxe asaka te it dañuy woor comme ñun nu ñuy wooree waaye ñoom dañuy joxe asaka di saraxe ci seeni alal te ñun amuñu loolu Yonent bi sallallahu alayhi ne leen yàlla defal na leen yéen it fi ngeen di joxewee ay sarax من لن يجني إن بكل تصبيحة صدق بعد سبحان الله سابوك وخي يال بندل نلا يولكم كجخي صرخ من لن بكل تحميدة صدق نوح الحمد لله يال بندل لا نلا يولكم كجخي صرخ نوح لا إله إلا الله من سني بورم سبحان وتعالى بندل لا نلا يولكم كجخي صرخ نوح الله أكبر yàlla subhaanahu wa taala bindal la yooru comme ku joxee sarax ñu ne ñooñu ñu mujj ni daal di kontaan lool ba ñoom saa bu ñu jullee pare rek ñu toog di wax baat yooyu xam ngeen baat yooyu moom mooy albaqiyaatu saalihaat bu ñu jullee pare yi nga xam ne moom lañuy def ci suñu baaraam yi ñu koy def di ko def ba borom alal yi ñoomit gis ne gaa yi léegi bu ñu julliwee bi ñu génn jàkka ji dañ leen di gis ñu bari seen ruq parce que ñoom it comme dañoo jàpp ne ñee ay borom alal lañu ñu ngi saraxe di def loolu ñooñu bu ñu jullee rek ñoom it ñu daal di yoxosu bàyyi gaa yi génn ndànk ñoom ñu dem seen ruq di wax ba mu yàgg gaa yi na ñii ñu xool la ñuy wax ñu jege leen ba xam ñoom it li ñu ñoom it ñu commencé ko wax ñu delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi ah, bi gaa yi kat suñu secret bi nga ñu joxoon bi nga ñu joxoon ñoom ñu ngi koy def mu ne leen zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim kon loolu ay buntu yoon la ak i buntu tiyaaba yoo xam ne jaam bu nekk ku nekk mën nga ko def même dañuy nettali am na benn ci saxaaba yi ku jigéen la ku musa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko man léegi dama magal amatuma kàttan pour yenn jaamu yàlla yi daanaka jóg taxaw sax mënatuma ko dama damay toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko naa la jox loo xam ne dina remplacer la nga doon def yëpp te fekk dangay toog ngay am tiyaaba ñi nga xam ne dañuy jóg di dox di dem mu ne ko lool lu mu mu ne ko del wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu kon mbokk yi ay ñeenti kàddu la yoo xam ne yu màgg la yool yi bari na lool ci suñu boroom subhanahu wa taala kon yàlla nañu yàlla yombalal ba ñu mun di taxawee di wax kàddu yooyu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 واجعلنا للمتقين إماما وقوموا إلى الصلاة